salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi yéen ci seen chaîne Kemtan TV tey nag yéen ci seen émission religieuse comme ni ma leen ko waxee woon rek tey nag ñu ànd ceeg mère Kémane tey nag ñu koy bàyyi mu présenté wu wax ñu tuuti cursusam li mu jot a jàng yépp ak euh, tey jii la lañ nar a waxtaanee mère Kémane bisimilah. aouzu billahi min achaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin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 di ñaan yal nañu yàlla musal ci mbas mi man nag euh, dañuy wax ne ay oustaz rek la gis waaye oustaz yi am na parce que benn laa ci oustaz la professeur la de langue arabe diplômé à l'université de Koweït bac plus plus cinq euh, may ñëw nag ci xew-xewu jamono yépp rek wàllu jigéen ñi wàllu mbas mi wàllu diine ji wàllu ak coow yi fi am yu bari ñu ñëw di ci indi ay leeral ci yu bari ci yàlla may ci suñu xam-xam alhamdulilah waa tey nag suñu thème di jigéen ñi tey nag ñu bëggoon xam euh, l'islam ban gëdd la jox jigéen ndaxte yàgg nañoo dégg góor àq bi jigéen am ci jëkkëram àq bi jigéen ñi am ci ay doomam ak yooyu mais ñun daal gisuñu ba tey ku ñu wax dëggantaan àqu jigéen dëggantaan ci biir ci biir suñu diine ak it jëkkër ci ban àq la war a mën a yoreel jabaram bismillahi rahmaani rahim yal na ni yàlla def uh, ñu am uh, dégg-dégg waaw jigéen yàlla daf ko teral yàgg na ci diine ci lislaam waaye jigéen amul woon benn valeur avant l'islam ci tàng xeet yi nga xam ne ñoo jiitu sax l'islam maanaam ñu ngi nekk ci grec yi jigéen dañ daan wax cheytaane la ñu ñëw ci romain yi romain yi dañ daan wax jigéen impur la tekkiwul dara amul benn valeur à part valeur sexuelle bi nga xam ne moom lañ ko daan utiliser nga ñëw ci israélien yi jigéen bu defee mbaax wala mu gis mbaax dañ ko doon ber ci ginnaaw du togg du bokk ak ñoom lekk ba mu pare ñu ne ku setul la ci jaahiliya mooy ci l'islam ci jaahiliya avant l'islam ci arab yi jigéen moom dañ daan jël rek gas ba mu suul xóot ñu suul bu fekkee ne juddu na moom la yàlla di wax ci alxuraan ne bismillahi rahmaani rahim wa idal mawluulatu suilat باي ذنب قتلت سونو بوروم ديكو واخ تي القران ني بيبي بو انوسان بوب ولا بو انوسان لا لا ديك بان كاي راي مو واخات تي القران بسم الله الرحمن الرحيم اذا بشر احدكم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكوا لهم او يدس في التراب على ساعة ما يشوف سونو بوروم نينا بو ني ما سان توك تي ci ci ci ci ci pénc mi ñu ñëw ne leen am nga doom bu jigéen ci jaahilee ci arab yi dañuy jël doom ja daw moom ba ca désert ba gas ba mu xóot ñu suul ko ndax liñ ci doon ragal neen bu amee doom bu jigéen bu geer amee dañ koy jàpp tëdde ko wala ñu def ko jaam daf leen di indi rek wala ndox dal ko nàngam da leen indi rek aar mooy da leen indi toroxte wala da indi gàcce waaye bi lislaam ñëwee ñun ñoo am suratu nisa wàcce suratu nisa wàcce suratu tahrim pour ñun wàccee suratu nuur pour ñun wàccee suratu talaax pour ñun wàccee ay aaya ak yu bari yoo xam ne lislaam daf ko jël jox ko jigéen nga xam ne kenn mënul ne yàlla dafa wax ci aaya bismillahi rahmaani rahim ya ayyuha nnaas innaa xalaqnaakum min dakarin wa unsa yàlla dafa yemale góor ak jigéen de ci pratique ci diine ci woor ci def lu baax ci indi azaka ak ci julli fu mu waxee ak saalihaat saalihiin ni saalihaat xaanitiin xaanitaat muminin muminaat maanaam daf leen yemale ci pratique yoo xam ne yépp sharia moo ko def diine moo ko def jox ñu àq yoo xam ne amul kenn koo xam ne mun na ne dindi nañ àq nii bu ñu gisee ñu ngi jàpp lislaam naan dafa jël jigéen jox ko place boo xam ne dafa tuuti ndax bu ñuy wax affaire miraas dañ naan góor benn jigéen góor ñaar jigéen benn loolu ci jublu rek doomu aadama moo dem ba àddina yàqu muy muy defelu ndax yeneen yàlla suñu borom dafa def pour góor moo gënoon mooy nekk ki nga xam ne moom mooy dépense moom mooy dépense dépense moom mooy joxe dépense ci jigéen maanaam moo ko war a yor waaw dépense am it moom moo ko war a yor waaye nag dañ dem ba jamono ñu ñu naan jigéen lu mu def boo defee benn ma def benn mais loolu ko defee te amatoo benn kilifteef soo ne sa jabar defal benn ma def benn amatoo benn kilifteef yàlla toral jigéen jox ko maqaama li rijaali nasibun mimma ktasabu wa lin nisaai nasibun mimma ktasabu yàlla nee na góor gi dañoo am ci part lépp lu ñu am ñoo ko moom waaye jigéen dañoo am part lépp lañu kenn warul jël salaire u jàmm kenn warul tere jigéen muy liggéey kenn warul ko tere mu am suturaam soxna Xadija radiyallahu anha di jabaru Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di soxnaam nek na ñaar fi kat ak juroom mom moy dépense mom moy yoroon yent bi doon borom al jo xamni ñepp tok na won ci makk wax lool kay bu l'islam ñëwoon xamne lool baxu day wax yonent bi jëlal al jep nga dem di commerce te mom nga bayiko suñu borom dane jigen na nga ko dimbali jox ko mu lek jox ko mu nan nga dépense ci kawam te lu mu am nga bol nga bayiko lo am nga dolli kon nag li ñu gis léegi lan la man su ma amee lu ma metti rek mooy bi may dégg ci yenn télé yi pas de publicité ñuy wax na ndax jigéen bu jàng amul ay waa ak a jàng benn laaj di ustaaza ñii ngay dégg ñu nekk ci télé yi amuñu dara dara dara dara ci ñu góor ñu ma ëppal am naa sax ay collègues yoo xam ne jàngal jàngaloon lañ ci benn école ñu ngi ci yenn télé yi waaye boo nekkoon ci liggéey rek boo xam ne xëy na jamono ak tamit nekk nekkoon ci ndaw. waaye dañuy toll foo xam ne nag war nañ dugg wax nit ñi dégguñu amul diine lislaam lu mu xañ jigéen nii ci xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xudu nisfa diinikum an haadil xumayra maanaam jël leen seen génn wàllu diine ci ndaw su tuuti si xees bi muy sayidna Aïcha radiyallahu anha ku ko gën a ku ko gën a am xam-xam ba yàlla defee ñu tuumaal ko lu bon tamit dafa ñëw taxaw indi suuratu nuur mooy suura boo xam ne la lumière na wax kii ngeen jiiñ lu bon lii bu ko kenn defati ci àddina def ay charte yoo xam ne benn góor wurul jiiñ jabaram njaaloo te fekk te te te waatul juróom-ñaari waat ne ba ca topp yàlla na ma yàlla alal jigéen gën a day fen waxul dëgg yàlla de ko waatal juróom-ñaari waat ne ba ca yàlla ma yàlla mere xoolal xoolal xoolal torox kii yàlla a na ma yàlla alal ak na ma yàlla mere parce que danger bi ci nek ak lu ñaaw li l'islam bañ goor di ñew di ko def ndax jigen bo xese ba ba jiñ jaaloo ngay jëkkëram ya nga adina fu muy séyati yàlla donc teg barrage yo xamne nek ne ku ko def yow man alak na la fekk waxo deug yow ku jigen gi bu fekkee da ko def nga fen man dama la mer way ana mer rek alak ku ñu mere soo tuubee yàlla mun na la ba way ku ñu alak jeexal nga ci adina te yalla loolu tek charte bi ci goor ne bu len ci nga mu leen ci wax lu lu bon bu nangeen bàyyi nit bu ñëwee sax indil leen xabaar boo xam ne xamu leen ko ngeen wax ngeen wax ci tuub leen ci yàlla jox leen ay conditions yoo xam ne waaw loolu yépp ci lislaam defal na ko jigéen suratul mujaadala mooy saar bi nga xam ne discussion la entre deux personnes benn jigéen bu doon wax xaw Xawla bint Saala bala dafa dem marié yor xaalisam jëkkër ja lekk xaalis ba yépp dem takk jabar bu ndaw mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw lan la yàlla wax ci góor goo xam ne dafay takk jabar mu nekk xale rafet ñépp bëggoon ko mu yor àllam bokk fu baax mu mu ko ba mu ba dem ba tekkeetu dara mu ñëw na yonent bi samay ween wàcc nañ samay lex wàcc nañ man ñaaw naa kenn soxlaatuma te maa ngi yor njaboot ku sew te kii dem na ut beneen jabar bàyyi ma su ma ko bàyyeeg xale yi xale yi sànku ndax dootu leen faale ndax ma nga jabar ndaw su ma ko jëlee jëlee amatuma dara xale yi xale yi xale yi réer ndax xam xale bu amul loo lekk amul loo naan da ngay réer da ngay taxawal te su ma ko bàyyi ci seen bàyyi yii ñoom ñu torox musiba la ñu nekk su ma leen indee nag ñu xiif ndax dootuñu am lu nekk amul lu nekk mu ñëwee rek di ñëw ñetti yoon yonent bi ne ko yàlla waxagul dara ci man de mu ñëwaat yàlla ne ko bi waxagul dara ci man de alxuraan wàccagul dara ci man rek sunu borom daal di wàcce aaye ne laqad samia allahu qawla allati tujaadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasmau taxawurakuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daal di wàcc aaya bu doy waar suur suurat suurat boo xam ne dafa ne ko yow yonent bi jigéen ji ñëw fii di la di di di di di wax ni dafa am lu ko naqare man yàlla maa koy tontu maa ne yàlla man sama borom dégg naa seen discussion bi seen diggante te dégg naa ko bu baax te fekk jëkkër ji dañ ko ci arab dañ daan waat ci lis avant l'islam man su ma la naratee laal naa la mel ni man su ma la naratee jege comme jabar naa la mel ni sama palaasu yaay nga nekk te buñ ko musaan def jeex na kooku musutu dellu dootul delluti yàlla yàlla nee na nañu bàyyi loobu waat ndax waat boobu baaxul ndax jaruñu dara te ku ko ci defati yàlla dina la teg ay daan yoo xam ne di nga leel ay miskin wala nga goreel jàmm loolu la من لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم من التي تظاهرون منكم الذين يظاهرون منكم من نسائكم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا لائي ولدنهن وإنهم ليقولون من القول وزورا يلا نينا na da ngeen di waat ne sama jabar ji su ma ko naree seq ak moom loolu teg lañ ko fële man yàlla kuy baale laa waaye na ngeen bàyyi loolu ndax yàlla seen yaay yi leen jur mooy yi leen jur ci seen biir lu seen i jabar yàlla indi foofu loo xam ne day def définitive mu jóge ci fase boo xam ne dañ ko doon fase jigéen waaw ñu am suratu talaax yàlla nee na ñi nga xam ne jigéen ñi nga xam ne yàlla man suñu borom dama leen di ngeen ànd yàlla nee na boo leen àndee ba tas bul jël ci moom dara man lu ñuy def fii Sénégal jaaxal na ma loolu du ci lislaam naka la nit di taseeg dara nit ne ko remboursé ma sama xaalis te yàlla nee na ana relation ba ca nekkoon ana affection ba fa nekkoon ana mbëggeel ga fa nekkoon yow xale bii nga jël ko jànq est-ce nga ko delloo li nga ko jël nga dellu si ne même boo leen amee ay doom nga dellusi si na la jox sama sama xaalis kenn musu koo gis nañu delloo si xel yi xam ne suñu borom tabaraka wa taala l'islam moo yëkkati jigéen ci martaba boo xam ne benn benn am ko ci àddina jox ko sutura jox ko teraanga jox ko mhm. kontaan nañ trop ci waxtaan gi waxtaan gi am na solo lool tey nag wax dëgg yàlla ku ne woon oustaz aw kay jigéen yu jàng amul Sénégal yaakaar naa ne tey moom leer na am na bu baax macha allah jàng na xam na bu baax sax li muy wax diine bi aussi li mu fi jot a wax yëpp leer na nañ ñun nak ñi ngi leen di dig dajee beneen yoon ne leen émission benen inshallah allah dinañ wax ci yeen laaj ñu ñoo ñu laaj amna ño xamné xam ne nañu ñu wax ci mbirum fellation ñu wax ba xam loolu islam lan la ci wax bu soobee yàlla suñu émission bi ci top inshallah ci loolu la wax kon nak ñu dégg leen tëjee ci benen yoon ci seen chaîne Kemtan TV mère Kéman tàggool téléspectateur yi kon nag alaykum wa rahmatullah ma uridu ila al islah ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wa alaykum wa rahmatullah wa barakatu